mbooloo ma ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñep si jotaay bi di wax ne tay liñ fi dajale mooy euh, collectif bi nga xamantene collectif bi nga xamantene euh dañ ko tek pour défendre intérêt travailleurs yi ak euh, intérêt malade yi intérêt hôpital Le bampek bi nga xamantene ñun euh mën nañ ne fi moy suñu moy suñu lepp daal moo tax nag tey ñu xam ne war nañu mën a wax ci problème yi nga xamante ne moom moo nekk ñuy wax ne dañ doon wax ne est-ce que les médecins et le personnel sont d'accord sur la proposition de reconstruction du du du président ñu ne waaw ñëpp d'accord nañ ci loolu parce que boo gisee ñu ne ñun d'accord nañ ci loolu mooy ñëpp xam nañ ne Dantec dafa màgget dantek cent ans am teg na Dantec condition yi ñuy liggéeyee metti na dañuy xëyee suñu kër ñëw pour liggéey si mais des fois dangay ñëw dara doo ko mu ne si loolu noonu kon bañuñu tabax bi euh, bañuñu xooluñu euh, hecta xooluñu si ñaata hectare lañ koy tabax mais ñun li ñu jóg mooy intérêt personnel bi personnel bi nga xamante ne euh, catégorie personnel yu bëri lañu am na ñoo xam ne université lañ nekk am na ñoo xam ne état bi moo leen jël am na ñoo xam ne contractuel hôpital lañu am na ñoo xamante ne prestataire lañu léegi ñu ne ba ñu ba ñu waxee waxu tabax bi ba léegi ñun ñu ngi dégloo ñu ngi toog di dégloo fu mu nekk ni amuñu lenn loo xamante ne lu leer la si lu jëm si personnel bi motax ñu né ñun loolu dañ ci wara jokk taxaw si parce que euh boy xol dañ ne won dañuy jaay 3 hectares mo gi ñu né 3 hectares euh jaay 3 hectares tabax 3 hectares légui ñu né 3 hectares 5 lañuy tabax finalement dañu waxoon tamit bu fekk né dañuy tabax ñu nak personnel bi ñu ci ëpp duñu gën dañuy dem ci benen côté bi nga xam ne moom la jaay côté bi ñuy jaay fofu lañuy dem suñu su su fekkee ne tabax nañ ba pare ñu ñu ñu ñu ñu ñu dellu si waat ñoom ñu doogay tabax ko tabax côté boobu ñu doog koy tabax mais finalement doo xam fan ngay teg sa tànk parce que dañ naan dañuy tabax yëpp personnel bi yëpp dañuy jóg ñun bàyyi ñu tabaxaat ak condition bu ñu koy mën a ci defee rek nga nekk loo xamante ne personnel bi kenn du si perte sa emploi lépp loo xamante ne da ko doon am nga bañ ko perte. parce que booy xool personnel bi dañuy am fii yëpp ku si nekk def nga si prêt te su fekkee ne tey dañ ne dañ leen ngeen tëdd seen kër dañ tabax ba pare ngeen ñëwaat xamuñu ndax dinañ fa dugg si waat ou pas parce que booy xool am na ñu bëri ñoo xamante ne seen structure dañ ko tëjoon mais après moom ñëwaatuñu kenn xamul fan la mujj li si ëpp si maternité bii boo xoolee bi ñu ko tëjee dañuy tijjiwaat genn wàllu personnel bi fi nekkoon yëpp ñëwaatuñu léegi nag ñun ñu ne ñun suñu ñun dañu jóg taxaw di di di interpeller le président de la république ak euh, le ministre de la santé parce que nag liy jot dafa jot gannaaw bi parce que dañuy wax na septembre la ñuy te ba heure bii ñu kenn mënul wax leer soo waxee ñu ne la tey ministère de la santé day jël ñëpp soo ñu ne la personnel bi ñii dañuy des ñii dañuy dem ba tey amaguñ si lu leer waxaguñ si dara loo xamante ne nit mën na si taxaw sukkandiku. pour ne ñun dañuy des wala ñun dañuy dem kon la ñu waxoon changé nañ ko moom notre directeur ñu ngi koy interpellé pour mu mën a dem am loo xamante ne lu muy ñëw teg si loxo personnel bi parce que tamit dafa jot pour mu ñëw jàkkaarloo personnel bi wax leen réellement li nga xamante ne moom moo am euh, bu loolu weesoo nag ñun euh, dañoo booloo nekk benn pour suñu intérêt moo tax ñu booloo affaire yi du amul syndicat bii laa bokk wala bële bi ñu demee séminaire li ñu wax ci séminaire bi lu leer naa ñu la dañu ñu présenté plan yi wax ñu ñun ñëpp a nekkoon ñëpp bépp ne dañoo dàq loolu mais mais dañoo mais dañoo yokk dañ ne dañ ne dafa am dañoo corriger am loo xam ne dañ ko see dolli léegi nag li nga xamante ne moom lañ santaane woon pour ñu defaat ko si defe naa ne ki nga xamante ne moom moo war a tabaxaat hôpital na si loolu waaw ah dolli na si loolu léegi ñun comme ñun ñun dañu ay architecte ñun dañu ay maçon ñun duñu euh, courtier ñun dañuy faje comme ñun dañuy faje ñun ñu tabaxal ñu hôpital boo xamante ne hôpital bu nekk si no bu mucc ay bu nekk si norme yi ñun loolu mooy suñu intérêt mais suñu intérêt du promoteur bi koy tabax du suuf si li ñu fiy jaay ñun loolu intéressé wuñ ñun li ñu intéressé mooy nañ ñu tabaxal hôpital boo xam ne hôpital bu jaar yoon la pour ñu éviter pour nag li nga xamante ne mooy mooy urgence boo xamante ne waratuñu mën a xaar a tabax daar daar mooy dañuy bañ la daloon Tiwaawan ak si yeneen hôpital yi mu ñuy dal ak la daloon Louga mu ñuy dal ñun loolu la bañ parce que condition yi ñuy liggéeyee metti na waxuma la dara sa mais ñun bloc central bii ñu nekk man ñun ñu fiy liggéeyee man may major ba ñuy dund ñun rek ko ko xam yeneen service noonu yeneen service noonu bu la fekkoon ne kenn ku nekk dañ laa jox pour nga wax di nga wax li ngay dund sa service kon hôpital laaj na ñu tabaxaat ko loolu la léegi nag ñun suñu suñu suñu suñu jotaay bii nii mooy pour suñu wax jii nii mu yegg si le président de la république balaa ñuy toog ñu koy un bon jour mu ne génn leen dañ koy tabax te bu ñu toogee tamit ba ñu leen génn leen ay gendarme taxaw fii si bunt bi ñëppay génn kenn du xëccanteeg ñoom ñun nag ñu koy interpellé di ko wax ne ko ñun suñu urgence du suuf bañuñu mu tabaxaat ñun suñu sago mooy mu tabaxal ñu hôpital bi mu tabax ñu ko si condition yu baax si norme yu baax ñu bañ a perte benn emploi nit ñi ku si nekk la nga doon fayeeku nga di ko fayeeku say prime nga di ko jot ñun loolu mooy suñu bëbët loolu moo ñu dajale fii euh, tey Euh, fonds social. Voilà. fonds social, Fonds social, euh, par mois. Par mois. 182 millions 693 470 euh, par an 2 milliards, 2 192 321 640

mais euh, vrai social la booy xool ñi fiy ñëw ñëpp genn wàll bi yëpp daanaka moo leen ñu jël en charge te bu ñu ko tëjee tamit xoolal dialyse xoolal cancer ñuy def chimio xoolal euh, coro cardiologie ñun rek ñoo fiy jël prise en charge hôpital principal CTO foo si dem da ngay joxe garantie liquide ñu doog lay recevoir fii ñun dañuy jël prise en charge kon loolu yëpp dañ si war a bàyyi xel xalaataat ko ñun nag. Euh, ñu ngi sant ñëpp président ñu ngi koy gërëm di ko sant boo amee xelu xalaat ñoom defaraat ak ñu daan teg loolu ñun suñu mbégte la mais nag mbégte bi dafa des parce que mooy xamaguñu situation personnelle bi su fekkee ne tamit dañuy tamaxal ñu tamaxal ñu ba pare ne génn leen wala ñu tamaxal ñu ba pare genn wàll gi fi nekkoon duñ fi nekk loolu tamit nekkul loo xamante ne dafa neex sa xol comme hôpital Le Dantec ñun ñëpp ñoo ko bokk tey comme ni ko waxee am na deux camps. de camps yi ñun ñëpp ñoo àndoon nekk benn def benn collectif buñ demee ba si biir xam ne am na ay wax yoo xamante ne ñu suy judd am ñoo xam ne dañuy demal seen bopp si presse bi di wax wax yoo xamante ne yii si président la jëm yii si président Seyma la jëm ñu ne nag laaj na pour ñu ñu ñu ñu arrêté tas collectif bi si lañ ko tasee buñ ko tasee nag xëy na benn paax bi dem moom la leen intéressé ak ñun li ñu tax a jóg bokkul ñun foncier bi taxuñu jóg ñun suñu yoon nekkul si foncier bi ñun dañoo toog ba président ne day tabaxaat ñun moomuñu suuf du ñu courtier du ñu maçon kon suñu yoon nekkul si foncier bi ñun suñu yoon si li mu nekk mooy ñu tabaxal ñu hôpital boo xamante ne hôpital bu exemplaire la hôpital bu baax hôpital bu wuyu ay normes ñun loolu ñu tax a jóg. ak personnel bi nga xam ne dañ ci doon liggéey démb ak bërki démb nga xam ne saa yi dañu déggee waxu suuf la ñuy dégg waxu promoteur ñun dañu courtier ñun kenn fayuñu ñun yaakaaruñu si bëgguñu sax xam promoteur ñun moom nañ ñu tabaxal rek nañu pare na te tabax boobu noonu ñun dañ sa ñàkk suñu dara te malade yi il faut nga xam ne comme bu ñu waxee ne par exemple fay ñuy jaay dana am ñoo xam ne dañ fiy des loolu mooy dina dal xelu personnel bi ñoo xam ne fii kat dinañ fa dugg si waat te ñëpp génn nañu su boobaa lépp lu personnel doon am fii nii mu am ko parce que nag affaire bi du du du du personnel lu banque rek lay laal pharmacie yi nekk fii si biti ñoom ñëpp seen personnel yi dañuy dem dañuy dañuy dem toogi ci pharmacie bi hôpital moo ko doon dimbal xoolal waa jalis banque li muy def si social amul benn hôpital bu ko fiy def ñu tëj ñooy dañuy am problème nga dem cardio koro yi ñëpp am problème ndax li ñu nangu di ko jël si malade yi ak yërmande bi ñu am si malade amul benn hôpital bu ko am kooku moom dañuy waxante dëgg bu fekkee ne nag médecin boo xamante ne médecin euh, médecin yi fi nekk am nañu yërmande mën nañu faj te nag encore du loolu kese fii la ñuy former médecin fii la ñuy former infirmier ñëpp fii la ñuy former kon booy xool nag hôpital euh, tëjëm luy metti lay doon mais lu ñu war a xoolaat la xool. Euh, surtout personnel bi personnel bi ay père de famille ñoo fi nekk ay mère de famille ñoo fi nekk ay soutien de famille ñoo fi nekk te ñu seen gannaaw ku si nekk rek am na ñoo xam ne nekk nañ sa gannaaw yaakaar la moo tax ñuy interpeller président de la république di ko xamal ne ko ñun personnel Dantec ñun ñi nga xam ne dañuy nekk si saal yi di faj ñun nekk ñu si biti ñun dañuy faj waaw xëy na beneen collectif bii wax ñu si bëri nekk ñu si biir saal yi di wax ñooñu fajuñu de fajuñu fajuñu si biti nekk accueil orientation mënoo nekk accueil orientation nga ñëw ne da ngay waxal personnel bi nga xamante ne ñoo nekk si biir di faj kooku mënul nekk loolu moom mënul nekk loolu c'est impossible parce que ñuy faj la ñuy daj ak condition ya ñuy fajee ak la ñuy dund ñooñu ñoo si biti bëgg xam loolu wala ngay wax ak ñoom loolu c'est impossible mënoo wax si baatu si waxu kooku moom ñoom seen problème la waxu suuf moom ku ci wax sa problème la yow yaa koy gérer ñun moom waxu personnel bi la ñuy wax ak waxu Dantec euh, fu muy mujj ëllëg ak malade yi xam ne dañ fi doon ñëw yaakaar ko dafa fajoo nga xam ne su tëjee tey day suwe malade yi fan lañ bu fekkee ne dañ ko tëj définitivement nit ñi dem malade yooyu seen suivi fan lay doon seen dossier yi fii la nekk fan lañ koy jëlee ku ci feebar di ñëwaat kan nga fiy fekk doo ñëwee Dantec kan nga fiy fekk. kan moo lay kan moo lay teg fi nga a bi nga war a jaar loolu yëpp dañ ko war a xoolaat parce que tëj nii tëj tëj daan tëj brusquement moom problème la yaa problème parce boo ko tëjee ñu fi doon fajoo yëpp dañuy am problème parce que ñu fi doon fajoo seen numéro dossier wala ñu ngi wax wala faa lañ jëm et puis na ñoo xam ne mënoo leen déménager ba yóbbu ba ñuy jël dossier maladie yëpp yóbbu ko am dina am côté boo xam ne day metti si ñoom

kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant ñi fi toog ñëpp di leen gërëm di ñaan suñu borom mu yeggale lii si président Macky Sall mu agir suñu mu gën a gaawee merci.